buntu kër gi ubbeeku na boobu fanaa ne yow la soo demal duma la dal su ma la jëlee woon réeru la yaa samay sœur laa yemale ak sama yaay yooyu arab ko tuddee kinaayatu talaq du passé sariya teniru ci compte mu ngi toru mu ngi tenir compte ci sariya sharaa shaaf lay doon ak raa ak adam dellu bu la neexee def ci yaa def adam dellu fexel di fe mag chariatul kalaan chariatul talaax dafa am ak kinaayatul talaax riñaan gi nag ne bi daf yàlla daf ko wax karama maanaam daf ko wax chariha la fi bi abdihi jàngu leen loolu laylan la am layla ñaari masque la amul lif ak laam xam nga lu jur loolu faqat lif geeg laam dóor ci tanwin day wane ne guddi gi jeexul tuula kon nag dañ fi jógee ci géej dellu si ci fajar te bàyyi laaj naa am na lu mu wax neuf yi ci def baaru bu ne way nañ ci rasulullah waafir basit kaamil moom sara yépp baaru bu ci nekk way nañ ko ci kii laamiye bii mooy miimiye bi rek xam nga lu ma lu ma dox ci way bi بعث فبأت باقي مولاء الشائرة وكان له قبل القطاس خفول وجاز ترى سنة فبأت باقي جرم ياري ديلي أسمع لن تدي ديلي ديلي مو يو تكلي تكلي تكلي تكلي خمغا نياري سيرك سوكو تكلي سانغوكو أمبو جين يالا تكلي جرم ياري أسمع بين فيو فتح yaqulu ñibbisi xabdal utaasi ci fenku fajar nabi nee na kat may dem maa ngi fàttaliku ne romb naa génn garab gësam ko boobu maa ngi ko alburax gësam ko dem mais bi ma retourné garab gi dalagul te après bi ak yàlla may nañ ko 15 minutes de prise wa audience am na ko wisital àjjana mu wisite àjjana tout gis na kër Mansoor Mbaye gis kër Ibou Sakho ne bu rafet la yéegee ci yàlla la gisee ak moom na bi ko rafet la woon nag jërëjëf jërëjëf soxna si baarakalla parce que li tax mu jaar bét li li tax mu jaar ci baytul maqdis yi ñetti xiira lañ ci wax kër yaa ngi laaj ndax yàlla mënu woon a fa benn bi ci màkk yóbbu ko pourquoi mu doxal moom kilométrage si tol noonu doon ko fab am loolu jaru laaj min masjidil araami ilal masjidil aqsa door ko yéegal ñu ne dafa tële woon yéegale ko makka parce que réponse bi joxoon naa leen ko am déet moo di dafa doon bëgg a woon gaa yi li ñu xam ci distance na bi def ko benn bëccëg ñu contrôlé ko ne wax na dëgg pour ñu mën cee gëmee la ci des benn deuxième bi fa lañ ko déshabillé basarié baa ngi yem ci baytul muqaddas am na jamono yoo xam ne ci guddi googu ñetti melo la mel am na jamono mooy wax ak niiw yi koy wax ak niiw xam nga dundatoo bu dul gént xanaa leen jiite leen mu nekk ci aali barsaqiya romb ñooñu dugg ci biir malaaka yi ñu soppiyati basariya bal barfaqiya def ko malakiya mu dugg ci groupe bi malaaka yi di wax ak yi nekk malaaka dem ba malaaka mel na mënatu la dem ñu def ko nag malaikal malaika jibril la seen pasara mais jibril daf ko ne fi boo ko passé benn jéego eer leeral la aras lakkama te ñaar yëpp am naa doxal yow kenn su ma jiitoo lakk soo jiitoo bu ma toppi sa kaw lakk sangi ملاكي إيسا سمس samsu وإيسا نجوم النجوم وإيسا الجبال سحرت وإيسا العصار حطلت وإيسا العنص أسرت وإيسا البئر سجرت وإيسا النفوس سئجت وإيسا المعودة سئلت بأي ذنب قتلت وإيسا السؤوف نشرت وإيسا السراء قسطت وإيسا الجحيم سعرت وإيسا الجنة أسلفت ألم النفس ما أحضرت فلا أقسم بقنص الجوار كنس وليل إذا حسحس وسب إذا تنفس من bi dàkk jibril ne innahu la xawlu rasulun karim fi quwwatin inda siraatin muta'in sama amin patron bu mag booboo dem ba ñemeñ ci la teggi tànk d'accord fii bu ma ko passé rek leer as rek ma wa maa minnaa illaa liman qaamaa ma'ahu wa innaa lanahnu saafi'uun su ma nekkee ci kanam lakk su ma làkkoo ci leer as lakk ma jàllal yaa fi sës xam nga na garde malaaka yu iliye yi gën a foor xam nga gendarme yi sës sës ci Abdou Abdou Diouf ñoo gën a foor ñi ci def ñi sës ci Habib Thiam ñooy patron ñi sës ci teewul ku ci am nga garaat maanaam garaat bële boo tolloog kii garaat te mu ne fële nga ne fii xam ngeen tuuti différence ba ci gendarme ok ah waaw waaw waaw waaw lan yem foofu. gaa yooyu ne ci pays abar ba ilahiya ñoo génn naan jibril reculer arrière naa def dellu ginnaaw fekk sa place tey dellu ginnaaw jibril dellu ginnaaw xam nga bi ñu noppi ci dellu ginnaaw lu ñu ci bi jegeñ sin naa yaa jibril mohammed ëddalul ne bi di xuus ci leer yi bañ na yeddeel foofa bëgg a sëgg summi bot yi mu soloon dox booba tappi wus yi ci lay dox te tapp yaa ngi noyee ni ndox di dem ba ci waq bi mu bañ la ñu waxoon Moussa ñu wax ko ko Moussa ba yàlla déyeeg moom daf ko ne sumil say dàll faxlaan alayka إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وأقم الصلاة لذكرى إن فاس أدية أخلي أخفى لتذكر لنفس ما تصحى ولا يشهدنك أنا من لا يؤمن بها فتضايع فترى دورك وما تلك بيمينك يا موشي بوكي سيسرين sëriñ دين ñu deen sumil dal la lu ñu def nii ma xanaa nun nii tubaab yi def catholique yi nii ñun dal yi la ñuy nuus bot bi ñu ne ko continuer ak sa ci kaw terrain bi ci kaw pappe wurus yi ba Alaaji Malik ne Moussa lañ doon weranteeg ne kon profet na ne ne bi du moroomam Moussa ci suuf la déyeeg yàlla ñu ne ko sumil say dàll ne ci kaw asamaan ci pappe wurus ñu ne ko bul sumil say dàll mu ne wama amara mawlaahu kan mawlaahu yàlla santul kan loo ñeel ne sant ko lan qul an ahlihi sumay dàllam ñu ne Maodo dafa am kuñ ko santoon mu ne ah du ma tudd jàmbur de waaye kësil waa de waa ji woon ci xurma waa ji woon ci xurma daara ne Moussa accident daf ko dal mu rey nit ci gàttal reye ko ci territoire bu ñuy wax xaayira keex daw fa dem Falastin Madiyan fekk fa góor gu mag gu ñuy wax Suhaybu nettali ko li ko gaar dama ko dox Suhaybu ngi am ñaari doom yu jigéen xam nga yonent yi daf ci am ñoo xam ne jigéen rek la ñu jur juruñu góor am ñu jur góor rek juruñu jigéen aw kañ yëkkati ko noonu day nelaw góor xam nga ne bu màggee dina xam luy lislaam de tuuti ku ñu indiwaale mu xool lamp yi gis nit ñi bare su màggee sax da koy da koy germent moo tax na bi ne wa kullu mawludun fi fitratin fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunaziraanihi aw yumajjisaanihi nee na ku juddu ci sama xeet rek jullit nga sa papa ak sa yaay mi la élevé ñoo lay dugal ci yëwat mbaa ci nasaraan mbaa ci majjus ma dem de mu ne ndogal ma dal avant mu àgg nag neuf kilomètres sa agsi na ci benn teen teen bi fi la màdd yenn yëpp di di wëgg ñu bari gàtt lañu mais pare siyaan la siyaan bu ne dafa am groupe buy wëgg deuxième topp ci troisième topp ci ku wëgg ba noppi da ngay ub ñi aye ñëw ubbi Moussa agsi fa une heure et quart ne rabbi inni lama ansabtu ilayhi min xayrin faqiru wéeru ci taati garab gi di leen xool seen ñaari njagamaar yu beru mu ñëw ne leen yéen xanaa du ngeen wëgg ñu ne ah kañ wëgg ñu ne sunu baay dafa màgget te jurul doom ju góor te kii fanweeri ni da koy ubbi balaa noo wëgg sàmm seen wëgg ba jeexal la ñuy desal ci ñu faraatu ci wëgg Moussa ne leen ngeen wëgg waa ko dem nag sëq moom kenn naka sa feet yonente dañu bari doole wax naa na sëwa yi ngay gis ñu di ko jël ci fas ci oto yi naan deux trois heures quatre heures benn naaru góor bu nekk loolu mooy naaru góor benn deux so ñaari naari góor la yor quatre so dooree ñeenti naari góor la yor mais benn naari góor bu nekk dooree fanweeri xale lu góor yu dara tuuragul def sa yor Mansoor jënd jinne ju nekk dooree fanweeri naari góor la am wala yu wu nekk dooree fanweeri jinne la yor wala yu simple gisuloo xaadi iyaan ba ñuy wulee ba muy wayaase ànd ak taalibeem dem ba ci tournal seen àddugal bi tiru ko kii ya mu okk taalibe bi ne ko gaa yi saay saay si la waaye léegi ñu daw ne safeet wàcc fas wa tóngu fas wa digal yi naan kalang lang lang kalang lang lang ah dégg ba ñu dawee man sunu xam nga lu wax taalibe bi dafa rek kon dañu foog ne du ma nit kat ma ne ko boo dee nit nit ak lëf nga nit ko toom góob naaru góor wala yu doole fanweeri jinne la yor benn yonent bu nekk doole fanweeri wala yu la yor na bi yor doole fanweeri yonent ndax mu bari woon doole fa rafet bari xel bari xam-xam bari doole am fit bari ngor am tagg bu rafet ci xol kenn melul ni moom laqad jaakum rasulun رسول من أنفسكم بعد أي رسول من أنفسكم بعد حريص علي ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رعيم فإن تولوا فقرات بي الله ولا إله دوري أنكي دي خلايا دال دي نيب سين باينة تيل جينا نيو تيل جينا خلايا وقولين آكاي جينا جان خلايا لقور مونو وقل كينا كينا كا باب ko a jël mbindaan mbindaan ma ci gën day bari doole te jub mooy fekk bi ko xale bi ne gananu bëgg daf ko ne dem leen oo ko mu ñëw ma fay ko teraanga ñu ñëw nag jël sikk ba ñu àndee ñoom di dem xale baa ngi sol robb léeg-léeg ngelaw li naawal robb bi boobu yi bëgg a fay yonente bi ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko xaaral ma jiitu xaaral ma yoon bi waaye foofu xeer su ma demee ci ñaari yoon dinaa taxaw nga sànni fi ma war a jaar moo ma gënal di xool sa yel yi moo tax moo doom ji ne ko papa istajirhu istajirhu fa ana xayra man istajar xawi amin papa def ko mbindaan mbindaan ma jigéen day am doole tu jub naar nag ñu fiir lañu bay bi nako ko doole ji xam nga ko njub gi ko ko xamal mu ne ko bi ni ànd ta sama ba bi naaw da def ginaaw for xeer nemal na jitu mom mu jitu xamul yoon bay ay bàggee ci ñaar yoon polone na sànni fi mu wara jaar ci la xamene ko jub mu ne ko wax nga deug dalika rek ne ko doom ini uridu an an ka xaqa إذا ابنتين على أن تعجلني فما لي هجج فإن أتممت عفوا فمن عندك وأريد أن أشق عليك korset hmm? ah, ni may dégloo ni may dégloo baaxul soo demee ci jàng jàng yi neex ci yow nga ne balaa balaa ma ko jekkoo gëmm booy gëmm di nelaw parce que ku gëmm noppi nelaw gëmm noppi nelaw xam nga ko bañ nelaw na ngay def xulee alal yàlla kenn mënu ko feeñ nit gis nga ni mu liggéeyee nit yëpp automatique ñu ngi naan oto bi automatique la moteur bi automatique la di ko naw nit a gën a fort yooyu te yàlla daf ko bind ci automatique waaw xamuloo ko su fekkoon balaa ngaa xef nii balaa ngaa gëm ne nii dafa sotti yu sew ngelaw ne fuy ba nga xalaat ne da fatt rasool yi na pat mu ñëw mu tegu ci kaw nga fittiwaat mu sikki tànk bi fekkoon booy dox danga koy téeg sa ñaari tànk teg ko ci palaasam te bii day sotti fii yëpp c'est automatique laama gi kay bëgg ci la ñu xamee ne jigéen mën nañ koo can lu mu jariñoo jëriñoo te sëy ba wér waaw nga can jigéen lu jigéen ja jëriñoo wul te sëy ba wér boo ci d'accord rek kilifaam ma sàmmal la dama bëgg nga sàmmal ma juróom-ñeenti at ma may la sama doom soo gis soo gisee sax ku jur jànq bu rafet te yàlla xiir ko mu bëgg a pooj yu neex te nga mën a fecc mu ne la defal ma juróomi pooj te jël ndaw si day dagal da ngeen defe ne jigéen balaa ma wér rek mu jariñoo mu jariñoo can nga déedéet benn ngoog te yónnante la ma ngi di beneen maam Adama lan la ca ne awa salaatu ala nabi salaatu ala nabi caq la machine la rajo la montare te sëy ba wéer na ci la ñu juddoo ñun ñëpp ma jàll de eh dama bëggoon jël la mbindaan nga sàmmal ma neuf ma may la ket quatre vingt ma may la kenn ci xale yi soo ba def ko diis sa coobare la man duma teg nit diis mu ne ko indil contrat ñu bind ma ne ko Moussa ne ko kat balaa ngaa bind daal yëgal tuuti su yemee ci wit bul ñeñ suma ma sawaree baage ci dix it sawa bindal loolu mu jox ko mu ne ko demal na ca pantere ba jël fa yet yetu Moussa bi ngeen di dégg foofu la ko jëlee fekk yet yépp a ngi juuree Moussa dem di jël yet yetu Moussa bi ci boppam tëb ca yet ya tegu ci loxol Moussa fekk boobu góor gi su bi gisatul mu ñëw ma ne ko présenté ma yet bi nga fab mu jox ko mu fóon ko mu xeeñ yet bañ ko noon ki koy jël yonente lay doon ma ne ko dong xoma bii delloo ko fa mu delloo ko fa ñëw ak loxo yi ko demal jëlaat yet mu jub néeg bi yet yu a tegoo ci loxo delloo ko xukuma bi ma naa la ko xëy na doom jigéen ci doom ci xam nga Moussa takk mi dina leen takk ñoom ñaar boobu boole ko bokkandee ak baay dagan dagan na parce que dafa dafa sàmm baagal ñu may ka ka mu xeme moon ñu may ko keneen ka fekk ku ndaw ke dàq te jabar rafet daf ci baax jigéen amul ayib lu ñaaw képp nag bu rafetee rek amatul ayib benn ayib bu yeboo mën a dox bu yeboo mën a sàcc bu yeboo mën a fen waaye dara la rek te ko olof yi di di wax naan jongama ñàkkul daaguwaale dañuy dalal xelam ku ñaaw ku ñaaw it ñàkkul daaguwaale ku ñaaw it ñàkkul daaguwaale te wala kañ mu ne ko daal ki taxoon may sàmm du mu ne ko amuñu habitude di ah, ah, maye rakk bàyyi mag non kon ma engagé waat renouer engagement bi pour jël ki ci def mu am fa 10 ans ne ko sama ay ci saay-saay bu bëri doole laa ko bàyyi woon fii xaw na te gëj naa fa fukki at dama doon ñaan permis seeti sama ndey mu ne ko bi ma lay may xale bi boolewu ma ci woon nga dem ak moom waaye sa jikko neex na ma ànd ak sa jabar mu jiital xale bi xale bi di jigéeni riir ñu def 13 jours ci àll bi riir yoon woo gëj fukki at asamaan si taw ëgg sedd guy ndaw si lox aw mat dikkal ko Moussa jabar yooyu ci àll bi من مكة إلى بيت المقدس وقبل كافر لك من بيت المقدس إلى سدرة المنتهى وقبل نافق parce que bii alquran daf ko tudd sariha bii daf ko tudd ci iltisaamu iltisaam bi dalalatul iltisaam rek la tudd dalalatul iltisaam nag amul doole ci atte mantaqa ak bayaan doole bi sariha am soo ne sa jabar buntu kër gaa ngoog boo feen doo yow la kooku kinaaye la du sariatu talaax sariatu talaax kañ yoonam laa ëkkule ba nga tudd faak si nara seet ndeem olof nga maa nga tudd sa sànk ak la mara xafara ndeem arab nga dafay xam yàlla waxul ne subhaana alladi asra bi abdihi min masjidi al aqsa ila sidrati al muntaha waxul loolu dalalatul tisaam la wax li nuyiwu la wax si boppi aaya ja bu bu bu ñu àgg woon ci laxas raaxa laxas raaxa raaxa ak nuyi bokkul wan la ak gis bokkul ma wan la ak nga gis bokkul wan nañ la ba tàyyi loo gisul gis nga ba tàyyi luñ la wanul weer waa ngi taafee dana fu mu féete ci garab gi waaye xoolal ni gus man de gisuma ko nga xoolal ci taax ci taax mi nii kooku mooy lii waaye ne bi nag doon na ba xam baax parce que si daaj naa def ne bul woy anta intiqaa wa xaayala du bu ibtidaaw asra bihi laahu tasrifan li miknatihi ba kañ atara atara dëgg li nuru yow li saay def ne maa la yóbbu ngir wani la ndangɗine bir ne kisne sottina am déet bana bi Ben ci pays bi taxaw xamul lu muy nuyoo yàlla yàlla sànni ci xel mi mu ne ataayaatu lillahi sakkaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi foofu leen ak nuyoo gi yàlla bant yi tekk ne góor pire yàlla la ñeel pays yi ma romba tey ngande yi ma gis tey jamaa yi ma romba tey beqotu billahi attahiyaatu lillahi sakkaatu jëf ji sell ak taggawu salawaatu te wax lu pour julli juróom li laa ñeel na yàlla loolu la nabi nuyoo yàlla noppi yàlla fay ko ne ko asalaamu aleyka yow itam aywa nabi yow laa wax waxu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu malaaka yi ñëwoon ci réception bi profito ne bu ñu ñàkk nan profito gaaw daal di wax ne ñoom it ñu nit asalaamu aleyna kat wala ibadillahi saalihin ñu fi nekk mu ne ko yóbbuwaale ko ñu di ko def ci taay yi siriya baa nga yem ci sidratul muntaha ci ci baytul maqdis man wax naa leen fànq bi muxtaar laa sëñu sidi muxtaar ma takraaru ko ngir leeralal leen li tax yàlla newu ko coppat ci màkka dama moom asmaani juróom-ñaar dox ak moom ba baytul maqdis dool ko yéegal benn antandi mbooleem suuf suuf sëpp ba mu daj baytul maqdis fi gën a jegeñ asmaani juróom-ñaar moo tax ruuy buñ leen ëffee fa la ñuy daje ba yemb dara monte dem rek la ji ñu ne na fi na di jaar comme mooy pays bi ñuy réglé na fi jaar dëgg fi tànkam ndax dangar ji wàññeeku wa naasiaati xarxan wa naasitaati nastan saabiqaati sabqan falsaalihaati sabqan falmudabiraati amra yoma tarjifu raajifa tatbauha raajifa qulubul yawmi sin waajifa absaaruha xaasa يقول إنا لما دولنا في الهدير إذا كنا إذا من نخنا حالو تلك إذا كانت الغالية فإنما هي سيد الغالية صيفا بساحرة صاير ما بيت المخدس منصور خمك الناس هاتي خلقم خمريت ناس ساتي نتا هذه خاتي سابقا الناس أي قلوب ليجي يبقوا سرويس seen jabar ya def lu baax lii maa ngi ko jëme ndar ci ruuwu yi malaaka yi koy jël si bokk ñoog malaaka yi jël si ruuyu jullit yi naasihaati mooy rocc lu sew mooy rocc lu dijj jar na ko ci fu sew nocc googu tëgg yi nocc première nocc ni muy dañ ni muy seere noonu la rocc ruu yéefar di métti ci yéefar day mel ne taxas ko ñu dugal ci sa gémmiñ génne ko sa suuf dippandoo koog doon naa seete xarxana ba ba naa seexaati giñ ci borom malaaka yi nga xam ne ñooy bipp ruu yéefar yi ndax xaan te bipp naa seetaati na san xam nga ko mooy ñiy jël ci ruuyu jullit ndoy mel ni weñ goy rocc ci sunguf sunguf soo teg nga seen ci rocc ak weñ yëg wëñ rocci gan na muy oyofi noonu la rocce ku jullit di oyof te it ndagam day jorim ji bi pratique plan àjjanaa nga ci soo ko gisoon gis sa kenn ku ne ci ñun bu kenn du la yóbbu sa yaa yóbbu sa bopp ko wax ci alquran ku ne yaa ngay xamee sa kër ci àjjana ni nga xamee sa kër fii bu mi dee ba ñu wàcc ci bureau yi di gars yi dañuy joxante ginnaaw ñi aw fii ñi aw fi ngay jàdd ko ba ñuy dugg ci kër joddal ko ba ñuy dugg ci kër joddal koñ ba ñuy dugg ci kër tourné na gauche à droite na yoxos ci kër fekk fa sa jabar ku la wax ne fii la doo jàppale woo ko jàppale woo ko borom tett boobu ci xel yi mooy tett nit ñi ci àjjana ku ne dem sa kër fasaa bi xaati saf xam-xam ko mooy ñiy ëkku amuñu service ci rocc ru waaye ñu ngi rocc ñu ngi ëkku ruu gu ñu rocc rek ñu ne tasax moom sànni ko jaana ma dem fële jëri jëm ruugu ñu rocc mu dem àjjana jëm ñu ne ci moom sànni si ko àjjana. kenn leeru malaaka yi kañ ñi ci am na groupe bu amul service na parce que amuñu jëmm ñooy xaalina am na malaaka da tudd xaalina amuñu jëmm euh, dañ leen def leer rek ñu ne bàpp bàppaaral amuñuy mbagg amuñu laar amuñuy tànk ñooñu ñooy ñii nga xam ne excellent service lu ñu pour toujours bokkuñu ci lu dara lu yàlla lay defu day wane euh, day wane كما خبرناه منازل أتى هذاك الهرجون القديم لزمس ينبقي لأن تدرك القرار ولا للسابقنا وكل في فلك يسمع قال سنة أخي سائرا مولاه على كونه شاعرا مولاه أنا بقول الوقت نبقى ديك كسولي نما يفعل الخلق سيرا المعلومات bi ma leen wax bu classe bi ba wàññee fukki bunt ak ñaar ci la indi lisraaxu bi li mu ci wax kenn waxu ko kenn kenn bindu ko ku ko bëgg a dégg pire pire ci téereem bii ngay ñëw juróom-ñeenti béykat la ci wax sax parce que dafa dàmbale lisraaxu bi ak xijra gàddaay gi la boole gisaaw benn bunt moo tax moo sut ci bunt mii mii ginnaaw li daay yi dóor Moussa ne Sohaybu dama bàyyi woon yi sama yaay saay saay bu am doole te géej naa fa may ma permis ma dem mu ne ko demal may ma la woon jabar pour nga yóbbu ko waaye gis naa cew ngor gu ma sëkk yóbbul sa jabar mu dem ba ca àll ba aw mag seeñu ndaw si asamaan si taw ëgg mu liir yoon woo gëj fukki at xamatu ko yàlla nag seeñu ko ak leer mu defe ne leer gi safara la mansoor léeg-léeg nit am fu mu yaakaarul dara lu ëpp la muy am ca fa mu yaakaar dara Moussa safara la foogoon ne moom lay tibbi dem fa faam ak lu buutu daf ne ini aanastu naara seen naa safara unkuzu noksu nag ci arab mooy bañ naa dogale bañ naa soññ dañuy réeroo unkuzu daju leen fi bu leen fi jub ini aana ku mi naa di xarolin baa xaa raa gu ñu tombul mooy firi gindi ku la wan yoon bi fii la xabasin boo amee raa gu ñu tombul mooy xal wa ànd ak gillinte ma man cee taal a waaye utal leen jong ma yu rafet fu ñu toog xaal naa lu mel ni safara toog leen fi leen day jur juyaalo mbaa rombante unkusu bul ko wax waxee mooy bul déranger di waaxu rek mu mel ni lamp bi ci ngor di def nii mu say waaxu rek naan fëy fëy nekk leer gi yàlla la ba jékkee-jékkee ñu ne ko fa allah naxlayka innaka bilwaadi muqaddasi tuwa wa naxtartuka لما ينهي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني وقني الصلاة لسكي إن ساعة آتية أتدعو بها لتجزي كل نفس بما تسعى ولا يشهدنك أنا من لا يؤمن بها وتضعف فتضع دولك وخما تلك بيمينك يا موسى léegi affaire am ah yetu Moussa woowu fa la doone foofa la doone li mu doon waaye yet la woon rek boo gisee officier yi gaaw ku ne di yoru yet te yet Moussa Moussa lu te lu ñu yetu Moussa yetu Moussa wa bu ko sampee muy ker bu maree sax capli muy ndox mu ñu galaasi su ko tegee suuf muy palaati yàpp buy nelaw mu wattu ko mus naa di nelaw ay sàcc ci bëgg sàmp ci xar yi yet waa xeex ak ñoom ba rey ci lu bari ñu ji dafa taw xam nga yet moom neexul a xeexal tax xam nga fooy dóor ci moom bu jógee rek bu dalee mu baax tel tel gars yi pratique yàlla xam na ne yet li mu ci nar ca fir xaw na mu dëgal boppamale su ko wanul Moussa fii ba Moussa gis ko su ko demee ci firaw na mu doo ko faa feeñu bi firaw na tiitee mu tiit te tiital nit tiitit amatul ndam yàlla ne ko màtti ko bi mi ni kay Moussa ne la ci sa loxo ndeyjoor benn bu tuddoon Moussa taful benn waay ñu dàq ko mu ne ci jàkk ji sarax fekk ñuy julli gaye ilimaan jàngi jiiti